moom rek la dérange des réseaux sociaux yi ñi muy déranger fu mu nekk ni bari nañ de. Mhm. la vraie question de de de si tu veux de l'état du Sénégal ou en tout cas ñi nekk ci dugub bi mooy comment contrôler les réseaux sociaux. Mm -hmm. on était au courant que euh, y a de cela quelques quelques mois yàggul dara na quand même. Euh, Babacar Diagne dalaloon na ay gan yu nekk bitim réew loolu yëpp pour ñu mën a xool système de contrôle ñu mën a def ci réseaux sociaux yi parce que xam nga mën na nañu contrôler lépp ba mu des réseaux sociaux yi fu mu nekk nii bari na nañu doole te toutes les informations passent par les réseaux sociaux la rapidité de l'information et surtout la rapidité des réactions également et sans compter que réseaux sociaux yi euh, autant ci média média média yi nga xamante ne ñoom ñoo ca nekk ñi diffuser information ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi asphyxier un peu les les yi nga xamante ni moom moo fi nekk xam nga bu ñu fexee ñoom ba mën a contrôler lii xew ci biir Facebook mm-hmm. bon déjà xam naa ne ñu ngi koy jëm ndax comme am na ay arrestation yu bëri yoo xamante ne publication Facebook moo ko jurte mm-hmm. euh, bu nu mënee fexe ba contrôler li nga xamante ne ñu koy wax ci Twitter li na bu koor naan Twitter moom loo bëgg xam ci kaa rek Twitter nga koy nga koy lijjantee donc bu nu fexee ba lijjanti loolu fexe ba mën a lijjanti nu ñuy contrôler YouTube mm-hmm. ak chaîne ya ca naa 2A moom mooy numéro un. cible numéro TV moom xam naa mooy cible numéro un. ñun rek bu ñu xool ci TMA. ñun ñooy problème bu mag de. ah bon xam nga bu ngeen su ngeen commencé télé ba kenn palais ba kenn am jàmm ñëpp ngi jàpp seetaan. ñu ngi leen di nuyu bu baax de waa mm. palais ak waa présidence ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen béggee di leen cuujoo aywa gëm leen yàlla yéen locat locataire yi ngeen léegi seen a jeex non mais ñu ngi leen di béggee sax bu baax di leen ah, ziar am na mais man ne man li ma jaaxal nga ne Abdou Karim Sall nee na dafay nan contrôler dafa bëgg contrôler réseaux sociaux yi Abdou Karim Sall moo nekk mbaaw Abdou Sall nekk mbaaw mbaaw mbaaw nekkoon mais moo nekk meeru mbaaw ah waaw Abdou Sall yi am nga am nga am nga am nga loo doy te gis nga boo gëmee yàlla rek da ngay dal Uh-huh. toujours ki ji si nga eh, ki jubadi xelam du dal lu yëngoo nag moom mm-hmm. waaye ki ragal yàlla day lekk lu lew te jub mm-hmm. bu yëpp yu yëngutu moom naan danañ tekk ndax yàlla dala xelam te gis nga àdduna bi mm-hmm. loo xam ne bu ëllëgee eh, sa bopp daan wax naan loo xam ne bi yaa ngi koy def di ko nëbb boo dee weeree dëgg la kuy naan di man boo jengee feeñ waaw te sa bopp nee man de gëm naa yàlla ko wax sa bopp uh-huh. dafa na ragal naa yàlla maa ngi jaamu yàlla àjjana laa jëm ci uh-huh. suuf si mu ne ah, doom démb de wax naa ay mën ko tax mën a ah la ma doon wax de sama xel la mais dama mujj tiit ci la ma doon wax muy tuub mën ko lan mën a mën a dee mënta ñàkk mais di koy jaaxal mooy ginnaaw dee lan mooy xew kon képp kuñ jox ndox ma tànk ak ku ma doon li nga jël di ko nëbb ak def yépp yàlla xam na ko te yàlla nga ko enregistré ndax dana bo ñaari malayka yoo xam ne bu dee nag bu dee li ngay jël di ko nëbb boo dee weeree de cey kullu nafsin bi ma kasabat bàmmeel métti te nit ñi nag dafa mel ne bàmmeel lañ koy fàtt dañ koy bàyyi bàyyi du bàyyi xel te na gis nga tëdd amoo dara ci àdduna bi ba yomal xam nga am dara moo gën te am na la gàññ ëllëg nga ñàkk bëri na ko xare dem ci xare ñu rey ko ñu ne ndeysaan dee ko metti mais ma nga àjjana koy jàmm la moo gën dee ci climatiseur ba fa dem safara ne na yàlla du nit yàlla du nit du làkk yàlla yàlla te ne lu waay def dana laal atte Mm-hmm. misqaala sarra sarra xam nga ne ci arab xam nga ko yow mm-hmm. mooy loo xam ne autonome la bët mënu ko xool yàlla ne dama la koy fay boo defee lu baax mbaa lu bon kon yàlla na baax mm-hmm. adduna bi daal defe naa ne président nguur gi day yem seen wàll ñun yem suñu wàll ndax adduna ku jël ku jël tibb lépp lekk ko da far waaye xam nga luy seen problème oustaz Diaga réseaux sociaux yi doole ba kàttan bi nu am ak le fait ñu ñu bañ a mën a mën a teg ci ñoom loxo ci li nga xamante ne maanaam mooy liy xew ci internet bi de manière générale loolu loolu waaw mais loolu malheureusement nag loolu mooy avancée technologie et ma sax Sénégal ndax partout dans le monde les gens ont des problèmes pour contrôler les réseaux sociaux encore moins ici au Sénégal parce que le téléphone portable rapidité bi mu am les iPads là qu'on utilise toutes les technologies c'est tellement rapide hmm. que à la limite doo am sax moyen contrôler yenn yi xanaa kay da nga naan damay seppi yenn émission yi ci yenn réseaux sociaux yi xool nu may def ba noonu noppi ndax finalement nu ngi de waa président ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen màggal ñu ngi leen di cuujoo di leen béggee suspicion yi ziar yi dafay bari mami woon nga jaay nga leen ci koy bandi dëgg nag am problème. non non dama leen di ziar dama leen di parce que xam nga lu tax parce que leer na ma ne ñi ci bëgg ak <laughs> sopp 2A bi bari nañu lool. mami waaw yaa Sey tuubal jooju tuubal wax jooju ngox léegi loola la. loolu. baa. luy loolu sax. da ngay da ngay def baa. bandi. waaw oh. oh ah. <laughs> tuubal <laughs> tuubal acca tuubal. lan la wax. tuubal ban ma waxati da da daa def ay fi bandi. kon yi nga wax nee na nga ah. tuub ko. ah non ah wax nga dëgg tuub naa ko de. tuubal tuub naa ko bu baax. tuub naa ko bu baax yow da nga yiw da nga yiw quoi. dëgg la de yaa te da ngaa nekk ci koor. dëgg la ah. dagg la wax nga dëgg de oustaz. eh, eh wax yow wax ci moom ko dama bëgg ñuy seetaan télé yëpp moo boobu moo boobu nañu ko kii daal. bandi. <laughs> xoolal de yi nag dama ko bëgg. <laughs> kii kii laa bëgg sama biir xol. dëgg yàlla ah dina solo. oustaz waaw. Euh, ajarat xam nga suspicion yi xam nga lan moo tax muy bari. ci réseaux sociaux yi balaa ngay yeggali ci Abdou Karim. Mm. Euh, ñu ngi ñu ngi ma ay ay élection nag te xam nañ ni réseaux sociaux yi mooy mooy moyen bu gaaw bi nga xamante ne fa la résultat yi di gaawee liñ naan euh, résultat yi dañ naan cëpp rek ne lay ci réseaux sociaux yi. mu yow balaa sax. balaa segg di ci am ak wax balaa sax balaa sama rakk ji balaa sax résultat yi sori na. Mhm. problème bi mooy xam nga élection moom kenn doo yegsi ba ci élection yi nga door koo liggéey. Mhm. Mhm. élection yi da nga koy travailler avant nga caa yegsi élection yi kay cappaandaw gi la rek. ah foofu foofu foofu nag mooy daj dëpp gi nag. foofu nag la lu neex. ndax boobu fekk na booy booy entraînement booy jël élan avant marque préparé bi fii nga koy waajee. cëppeelu lay gi nag mooy ca élection ya boobu moom boo ca <laughs> boo oustaz du noonu. gëm yàlla gëm yàlla neex boo ca yeggee rek dafa fekk na yow lépp problème bi xam nga lan la problème bi mooy quoi qu'on puisse dire moi je suis d'accord sur un côté quand même. y a trop de trop de chaînes yi nga xamante ne ça pilule de d'un tout petit peu partout et y a d'organisation ci li nga xamante ne moo xew ci net bi quoi qu'on puisse dire aussi le net a trop ses côtés ses côtés négatifs parce que malheureusement doo mën a contrôler ndax information yi ngay am yëpp ndax c'est la bon info ou pas mhm. parce que les les infos fusent ah, de loolu moom dëgg la te doo am moyen de loolu itam il faut que gis nga ni presse en ligne bi organisé woo itam la yi nekk ci réseaux sociaux yi war a organiser woo de telle mhm. que wala ñu boole leen ñoom ñëpp ci benn benn say nga xamante ne yëf yi day organiser ku nekk itam bu ñu la joxee même bu fekkee tu es sur une chaîne YouTube que tu sois une chaîne professionnelle di respecter ligne éditoriale bi nga xamante ne moom nga taamu. Mhm. mais malheureusement fii da nga fiy gis sax Kankan TV. Hmm? waaw da nga fiy gis Kankan TV da nga fiy gis mais xoolal booy bu ay conférence de presse à point de presse amee xoolal le nombre de personnes yi ngay gis foofu ñoo xamante ne ñëpp dañ ne ay journaliste la. xanaa réeroo dafa am seen biir. déedéet parce que bu ñu déggee Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse bi mu toogee jamono ji passé ci benn plateau télévisé li mu wax nee na euh, ci création d'emploi yi dafa bokk ci ñoom ni ñu yombalalee euh, xale yi jàng ba pare am bac ubbi sa chaîne YouTube di ci liggéey di fayee ko. kon xanaa réeroo dafa boo ko bëggee bu fekkee yéen da ngeen créer loolu ba pare en même temps ngeen bëgg ko assainir finalement dafa leen di désavantage moo tax xam naa ngeen bëgg koo defar. yo Nabou man moom wax dëgg yàlla Pape Malick euh, sunu kilifa la sunu ministre la mais vraiment man ay kàddoom moom mhm. du ma ca yendu sax ba cay fanaan wax dëgg yàlla parce que man parfois day wax je demande moom ci ban époque lay vivre ak ban Sénégal lay gérer ak ban jeunesse lay waxal mhm. xam nga kooku moom wax dëgg yàlla ay tontu boo ko bëggee tontu sax da ngay mujjee sona sa bopp mais li ma xam ba xam ko mooy man en tout cas bokk na parfois ci loo xamante ne dëgg-dëgg c'est pour le regretter mais y a pas une une grande organisation mooy problème mu mën a gérer justement les tey jii aussi quoi qu'on puisse dire Nabokor la presse ou une certaine partie de la presse bi nga xamante ne ñoo nekk ci chaîne réseaux sociaux yi notamment sur les chaînes YouTube mais information bi ñuy joxe les la presse classique ne le donne pas point de vue yi ñuy am presse classique bi du ko am dëgg-dëgg boo ko bëggee dégg da ngay déglu yenn émission yi nga xam ne ñoo nekk ci parce que am nañu liberté wu joxe li nga xamante ne moom mooy seen ay point de vue ci seen question et puis même ci seen yenn débat yi niveau bi dina élevé de telle sorte que yow di nga comprendre ne fii y a une volonté de vouloir donner une bonne information mais surtout ñu mën a également libre dans le choix autant des invités que de l'argumentaire ci li nga xamante ne moom la ñuy jox nit ñi loolu itam ça dérange ça dérange ci fait que ñoom mënuñu contrôler lépp yaa ngi wax dañuy jublu ci ay élections moo tax ma ne la liggéey bi fii la tàmbalee te ces informations que cette presse là donne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux bi te presse locale bi lu ci ëpp ci ñoom en tout cas même bu nu ko amee it dañ ci ñoom ñoo ciy teg seen coon ci ñoom wala ñu ne patuus noppi mel ni ku ko gisul wala di wax ci li leen intéressé te li leen intéressé wóoru ne moo intéressé sénégalais mais bu boobaa nit ñi dañuy tendre vers li leen intéressé ak li leen ñor moo tax ñu am doole gën a am doole yeneen chaînes yi nga xamante ne c'est des presses locales classiques yi nga xamante ne ñu fi depuis très très longtemps et loolu c'est censé déranger mais il faut ñu comprendre ne ils n'ont pas encore les moyens de pouvoir gérer les réseaux sociaux ils peuvent en avoir la prétention mais mënagun ko mm-hmm. parce que amagul benn loi loo xamante ne moo fi tegu pour loolu di ci am te buñ dee segg itam ba ci biir segg googu oustaz Diaga il faut ñoom c'est-à-dire que il faut ñoom ñu nangu contradiction na bu koor man pour man le vrai problème c'est ça il faut que nga nangu ne kii ak man bokkuñu gis-gis mm. kii ak man bokkuñu point de vue ci na ñuy doxalee te dëgg la nag toit as touché un point fort mooy on se dirige vers les élections les résultats vont être beaucoup plus rapides sur les réseaux sociaux que, que partout ailleurs. La preuve ak législative yi passé. Mais au-delà de tout cela, toute cette campagne d'information bi nga xamante ne réseaux sociaux yi dañ ko ciy jouer yenn info yi réseaux sociaux yi nga koy amee plus rapidement que ci rajo yi ak ci télé yi parce que da ngay xool léegi nii sa téléphone information wadd léegi li ci des mooy est-ce nga ko traité ou pas la question à revient na recouper information bi xool ba xam ndax loolu am na ndax wéeru na ci dëgg ndax loolu yëpp mën na ci am mais daal vraiment ñoom bu ñu bëggee yaakaar ne réseaux sociaux yi moom ñooy seen problème et dëgg-dëgg bokk na ci seen ay problème li tax bokk ci seen problème parce que li ñuy wax ci réseaux sociaux yi arrangé wu leen doonul loo xamante ne loolu la ñu bëgg dégg ñu ne léegi dañ koo bëgg jéemal pexe yee yaay pour que réseaux sociaux yi ba a am doole nanu jéem bu ñu mënee waaye ce ne sera pas une tâche facile. man daal dafa mel ne Seynabou. waaw oh, yaa Seydi président Macky Sall dafa am benn cat bu ko topp. Mhm. mooy amul équipe équipe boo xam jaar formation c'est-à-dire dafa mel dañuy tiit di wax ak tiit def réaction ba bu ñu moo tax ñu ne du ñu déggante parce que tamit état état état dafa état dafa. état dafa dafa sensible ba tax na boo demee ba ci palaat di wax ci turu état na nga xool am source wóor maa ñu yàbal la nga wax bi maa na tamit lool la bi naan léegi am na ko dëgg na parce que nag boo xoolee su mboxloo bi daa bari nag franchement mm-hmm. am na ñoo xam ne bi bëgg rek euh, di wax nga naan ñu amplifier ko moo tax dudduwaat sax digg naa wax ñu mel noonu parce que tey dafa baax daal mm-hmm. te bu njëkk boo boo gisaan daan rédaction doon baax ndax bu mm-hmm. xibaar nga wax waaw dañ ko daan seet rédaction ñu ko saytu mhm. war a jaar ñu bu jaar ñu dàgg ko mhm. ndax lan ndax wax ci fan la war a jëm ëllëg loolu ànd na ci beneen bi tamit bu dee euh, élection bi dañuy ragal na nit ki daal euh, li ñëwagut yàlla rek ko xam te yàlla ku ko jiitu danga taxaw mhm. am na yoo xam daal dootu xalaat toolu tuñu foofu lu daal calcul yu bëri yëpp euh, boo tegu ci dëgg nga am jàmm ki jub ki jubadi nag moom moo sonn mais ki jub yëngalu ko

daal di tweeté xanaa dinañ bàyyi xel ñi leen di bindal du dëgg bañ di yee Molière. fu ñuy defee foti fu ñu ko defee ci Facebook yi wala ci ci ci réseaux sociaux yi la ba tey wala. Ah. waaw loolu yëpp ci contrôle nag la war a dem nag dëgg-dëgg. contrôle réseaux sociaux faute yeeg yooyu faute yi fu mu am. ku faute ñu ngàtt la. <laughs> ku faute ñu ngàtt la làkk olof mbaa français yeneen nay xool. téeméeri hmm? téeméeri ngàtt mën na mën na ne mën na ne. d'accord yaa yaa <laughs> Seydi léegi mami ajaratu. <laughs> réseaux sociaux dina bëri doole nag naka la may naka la may yëngalee mais yàlla baax na. yàlla baax na Ajaratu tu es très tellement belle tu es trop belle ta coiffure ah, sa yére dafa nice c'est très joli macha allah mais doo ma yëngal de ci kàttanu yàlla ñoom nañu seppil seen bopp faute yi du dëgg dama bëggoon xam rek boo ci faute yi fu mu féetee rek mhm. ndax xam nga réseaux sociaux bu dee déranger nag wax dëgg yàlla réseaux sociaux ñëpp lay déranger rek voilà mhm. sociaux bu sociaux la rek ku ci nekk ak lecture bi nga ciy am tu tu sais parfois nga am douleur ngay ngay jàkkaarloo ni di ko seetaan ngay am méttit parfois itam ngay am méttit <laughs> di jàkkaarloo ni di ko liir wala di ko seetaan te lép ci réseaux sociaux yi la mm, mm. souffrance mm. égale souffrance méttitu kii daal gën a métti kale yëpp ay mettit la rek daf di xale yi à des moins gis nga ci jëmmi boppam mi nga xam ni moo fexe ba ñun ñu am accès à l' ñoom rek bu ñu sañoon réseaux yi ñoom nit ñu ko joxee dañ ñu koy delloo mais mënuñu ko ils saako ceeb saako ceeb ngay tàgguwaale. waaw saako saako ceeb moom du léppay weex. waaw moom mu am pepp pepp yoo xam day. Euh, yu ñuul ak ay xeer. xanaa ñu sepp ko nànk-nànk rek. dëgg la euh, yaa Seydi ba. yàlla yàlla def jàmm suba. amiin ñu def xutba bu am solo ci wàllu mburum koor nu ñu koy génnee ku ko war a génn ak ñoo ko war a jox. Mm-hmm. ak yan waxtu nga ko joxe. incha allah. ba suba ak jàmm solo salaamaaleykum wa a wa a jërëjëf euh, yaa Seydi dinañ ko dinañu ko retrouver demain incha allah alors avec la complicité de la régie dañuy